réalisation de Ousmane Sonko e la prise en charge de de de de de Mamadou Mamadou Ly parce que Bamba Fall dafa jàpp ne. Mm-hmm. Euh, toppatoowu leen woon Mamadou li mm-hmm. parce que Ousmane Sonko. Mm-hmm. était hospitalisé là-bas. alors euh, nan la Ousmane Sonko retrouvé woo ci sa ci sa clinique est-ce que yow yaa ko hospitalisé. ou est-ce que. nga ne yéen c'est une c'est de l'hôtellerie médicale mm-hmm. est-ce que da ngeen mettre à disposition euh, des locaux pour que moom mu mën a euh, ñu mën ko interner foofu mm-hmm. déjà sunu ambulance bi dafa nekkoon euh, au tribunal seen ambulance kon mm-hmm. tribunal bi histoire produit boobu amee euh, maître Ly a été le premier évacué si rek la ñu envoyé beneen ambulance nañu ko moom tamit dañ ko war a évacuer mais comme le d'habitude euh, les forces de l'ordre ont décidé que ñoom ñoo koy transporté hmm? parce que mooy heure bi ma lay wax ne ñëwoon naa indi andi à à Souma ñu ne ma sax mu ngi ñëw ñu préparer porte bi yëpp les forces de l'ordre ont continué chez lui on est voisins xam ngeen loolu. Mhm. xam ngeen tamit àqu dëkkandoo mu ngi ci dossier bi <laughs> kenn mosu ko. àqu mhm. dëkkandoo xam nga lan mooy àqu dëkkandoo. madame mhm. Ndour voilà. donc boo ay lacrymogène amee foofu maladie sax dañuy jot dañuy jot lacrymogène. ah mais à faut de ko on a ñu muñ. ma gis les forces de l'ordre ñëw jubal ko dem këram. Mm-hmm. dugalaat ko dans le même canevas boo xam ne kenn du dugg këram. Mm-hmm. kenn du dem. Mm-hmm. loolu tamit moo c'est une chose qui a beaucoup surpris les autorités. valeuru ambulance ñu bari xamuñ ko. on dit universellement qu'on ne tire pas une ambulance. mais am na autorités yu ko xamul. <laughs> ñu toog ba ci guddi. Euh, ci mën euh, na ma koy waxee sax yow <laughs> nu mu tudd. Ousmane Sonko Ousmane Sonko. Uh-huh. on dit plus pro sax. ah ñu benn président moom Sénégal. ah Ousmane Sonko. mais vous euh, l'appelez comme vous voulez <laughs> ah. en tout cas man ko woowee président Ousmane euh, Sonko ces médecins qui étaient autour de lui. Ah, ah. oo ñu à une certaine heure vingt deux heures nañu ah attention ñun de dañu bëgg ngeen jël seen ñu malade bi ngeen jël seen ko ñu dem on nous a refusé l'accès bi ngeen demee pour jël ko. jël jël ko la gendarmerie vous a refusé l'accès. la police c'est la police qui est là-bas. la police la police les mhm. mhm. hmm? avocats de de ce Ousmane leur prouver qu'une ambulance on n'arrête pas une ambulance car quelqu'un a besoin d'une assistance. Mhm. donc euh, ils ont fait tout un tas de délais on est retourné je pense une heure ou, deux heures après. donc kooku c'est un élément qui est vraiment. qui a été très gênant pour le, le gouvernement ou pour les forces de l'ordre, de savoir qu'une ambulance, tu ne peux pas l'empêcher d'aller quand tu as fait un barrage bouclé barrage boobu ñëpp xam nañ ko amul droit julli ji amul dem kii kenn def mais ñu ne la ambulance bu ndaw bi ah qui appartient aux petites couleurs sama <laughs> doomu sama ñang de aram subalo moo ñëw dugg casser seen barrage jël malade bi yóbbu laaj malade bi fu mu bëgg a dem ah mu ne mu ne comme que jege naa fii yóbbu leen ma fi yóbbu ko foofu sunu kuy dugal souvent nag euh, ci un médecin qui te regarde au moins bu fekkee li ngay jàmbat c'est conforme euh, ak peut-être boo amee premier traitement ñu defal la ko. alors seen am la fameuse togolaise là donc seen am donc ambulance moo dem këram et un de vos médecins s'est entretenu avec lui pour xool. Euh, de quoi il souffre moo ko jëlee woon infirmier moo ko jël en charge. bi mu ñëwee nag y a une règle on ne peut pas rentrer dans une clinique même si c'est un hôtel <laughs> comme on dit comme dit votre cher confrère là xaw ma ne ko nu mu tudd sax borom tur bu rafet boobu euh, d'accord ma ma mu tudd voilà ah moom nee na clinique suma euh, hôtel hôtel suma la ah, mais hôtel suma même boo fay dugg il faut benn médecin xool la quand même di déglu quand même dans loolu mu ne bon c'est pas critique il faut aller chambre de sa chambre il s'est organisé pour que ces médecins viennent le prendre en charge Le médecin qui était là ce jour-là, docteur Sissé, qui a été convoqué aussi mille fois, m'a dit qu'on est bien équipé, il n'y a pas de problème, on va être là-bas. mais loolu c'est une pratique courante chez ah, vous c'est-à-dire euh, yéen euh, est-ce que vous prenez la responsabilité d'interner quelqu'un oui. euh, et qu'il ne soit pas suivi par vos non. par vos médecins yeneen médecins de rentrée vous l'avez examiné ce jour boobu glace boobu nekkoon huit est-ce que dañ ko bàyyi mu dugg ah am na lu ñuy xool quand ci moom ba xam ne kii mën na toog dans une clinique wala quelles sont les dispositions à prendre s'il doit rentrer dans la clinique donc il y a eu le docteur euh, béninoise là Amina qui l'a bien examiné qui lui a posé les questions même sur ses antécédents que malheureusement le procureur a cité à la radio hein, ce qui est aussi un secret médical quand même de dire quelqu'un est asthmatique ou pas asthmatique bon kooku dans notre dossier il une partie administrative où y a cette question là mais moom il n'avait pas le dossier Madame Diouf. xale eh, ñu fay accoucher ñëpp. Mhm. man dinaa leen gis. ah dañuy ñëw wax seen gynécologue que ce soit un gynécologue de la clinique un gynécologue bu nekk autour de de la clinique bu la suivre benn la suba mooy sa terme fan nga bëgg a accoucher dana clinique nangam clinique nangam mu ne daa ñëw fekk la foofu. mais bu bu malade bi ne clinique nangam laa bëgg a ah. accoucher dans cette clinique la y a des y a des gynéco bien sûr y a des médecins non y mais tu peux ah. venir avec ton mais est-ce que sa gynéco bi day jël le devant. non bon bu fekkee dafa ñëw y a les Pour ce qui est de la maternité, il y a une sage-femme quand même. di accès la sage-femme va l'examiner bu ko bi examiner bu ko sage bi examiner ba pare moom mooy au médecin hmm? docteur Ndour yaa ni yaay suivre malade bi ñëw na présenté wu euh, bon je ne vais pas vous donner les détails du bon il va le faire un de l'état du malade. alors pour en revenir day accoucher tout de suite wala xam ban lay ñëw. pour en examiner ngeen ko ngeen décider interne ko. Mhm. sans pour autant euh, entrer dans les détails du secret médical. mm donc bi ngeen ko examiner examiner vous avez estimé. que da ngeen que que da ngeen waaw voilà bi ko docteur da ngeen euh, estimé ne. waroon nañu ko interner waroon nañu ko interner et à partir du moment où vous l'avez interné laalatu leen ko. exactement. il est venu avec ses, ses, ses Là, ah, médecins. Il a fait appel à tout. Il y qui le suivait. Il y a de ses médecins qui dit qu'il est le médecin du parti, qu'il n'est pas son propre médecin. quand il a lancé les accusations, ah, quand il ah. a lancé les accusations d'empoisonnement, euh, yow dara alerté wu la si dara gêné wu la si c'est-à-dire. fekkuma ko. ah fekkuma ko maa ngi woon aram suba la. non fekkee woo <laughs> ko mais vous êtes boobu sax heures ah fekk may dem. foofu laa la wax ne laa signé waale le papier de de Mamadou Ly pour pour mu génn parce que y avait une histoire de de paiement wu ñu waroon ko delloo xaalis man maa si man max sama jabar ñooy signé par hasard j'étais là de passage dem oto pour dem Fuuta ñu ne ma tiens kii day génn ma profité signé foofu ma dem ci bureau bi ma mayoon ñoom docteur Cissé pour ñu organiser seen staff médical mu ne ma tiens ça tombe bien il va mieux mais il dort bés boobu laa ko bëggoon a nuyu et ce serait la première fois que je l'aurais ba léegi mm. mu ne ma non pour te dire ils xam nga après aussi y a les visiteurs politiques machin bu ñu defoon. mais à la porte il y avait quelqu'un qui reconnaissait les gens qui avaient ma boobu day nelaw. Euh, dama lay interpeller en tant que personne morale. Ah. nga tijjil nit les portes de ta clinique. Euh, ngeen foog ne c'est une affaire simple. Euh, mu nekk une affaire au relent euh, au au politique. ñu ne moom mu ne ñu ne dañ ko empoisonné dañ ko lancé dañ ko sotti un liquide boo xam ne euh, dañ ko empoisonné voilà on a essayé d'attenter à sa vie mm-hmm. information bu mel noonu boo ko déggee mm-hmm. nga intervenir ci sa clinique mm-hmm. même bu fekkee ne c'est dans la partie hôtel est-ce que yow sa responsabilité nekkul woon tamit nga ñëw nga xool de quoi il s'agit et puis nga mën la sincérité mhm. des éléments médicaux parce je peux pas je peux pas contester la la sincérité d'un autre médecin qui le suit et qui va faire des examens xam loolu foofu tamit laa wax ne est-ce que l'État ne s'est pas empressé mhm. quelqu'un bu lay accuser moom moo war a le les preuves quelqu'un qui m'accuse aujourd'hui d'avoir volé son stylo là mhm. fu il y a pas de renversement de la charge de la preuve. comme avec dire ah. faut mu ñëw kii joxe ay preuve la la preuve c'est maintenant que ça maintenant que ça démarre ce dossier-là c'est maintenant qu'ils ont dit que le produit a été analysé dans tel laboratoire il s'appelle comme ça que les recherches vont démarrer qui a rentré mais à l'époque dans le Sénégal mais à l'époque il y a aucun élément médical bu doon attesté de la tentative d'empoisonnement. Parce que on, on... Quand, quand il y en avait pas. Non, à l'époque. il n'y avait pas. pas les, Ces les... gens qui s'en occupaient étaient tenus par le secret Mais médical. Nyom. Et c'était une procédure quand même stratégique. Mais ñoom ñi nga xam ne après qu'est-ce qu'ils ont fait pour chercher ce qui s'est fait au Sénégal ou ce qui s'est fait à Soma ce qui n'est pas faute, aucun faute n'a été fait. Malgré tout, ils ont cherché. Ils sont allés dans tous les laboratoires autour de Souman pour savoir s'ils ont reçu pour quelle faute d'avoir soigné quelqu'un mais xam nga bi ñu lancé accusation bi oh. procureur xaw na déploré bi ñu bi Ousmane Sonko ne dañ ko empoisonné par qui les forces de l'ordre ñoo ko les forces de l'ordre le monsieur si bi ñu jàpp ñoo ko ñoo ah, ah, euh, est-ce que médecin force de l'ordre le préciser non les FDS la wax ne ñoo ko empoisonné ñoo ko sotti un liquide toxique est-ce que médecins yi à l'époque amuñu mun munuñu woon prouver parce que les les résultats les analyses devaient se faire. benn élément probant. Mhm. bu prouver l'accusation waxuma léegi. à l'époque pas prouvé on prouve non prouve pas mooy comme certificat médical de coups et bu kenn ñëwee ne jëkkëram daf ko dóor même si on voit des blessures on ne dit jamais c'est son mari qui l'a qui l'a frappé on dit que madame Ndour a dit qu'il a qu'il a été frappé par quelqu'un mais boo leen koy defal boo leen koy defal certificat ci ay ci ay man tey su ma ñëwee ma ne la mhm. wax ne madame Ndour nee na kii nee na kii moom a dóor mais ñun duñ ko bind. ñun dañuy constater ne que bopp bi toj na fii nopp baa ngi saigné euh, que loxo bi neewi na on décrit les lésions fii tamit li ñu mënoon dem euh, kooku tamit euh, kii rek moo ko mënoon laaj l'accusateur moom moo waroon defal leen ma certificat médical que j'ai été par tel produit hmm? ñun ñu bind ci dossier bi loolu yëpp mais certificat médical bi ñu koy jox du ñu accuser kenn dañ naan monsieur un certain monsieur comment s'appelle sax Proso dama continuer Proso ça a l'air plus facile pour moi ah Proso ñëw na fii euh, nee na démb dañ ko sotti benn produit bu koy très bu koy très respiré wala ñuy yem foofu ngeen di yem. mais doo leen affirmer ne. dañu ko empoisonné. parce que il faut que ngeen. vérifier est-ce que euh, ngeen def ay analyse pour mën a asseoir euh, seen diagnostic. premier certificat médical bi muy laaj loolu la koy jox léegi nag bu ñu mayee ñu def ay prélèvement yóbbu ko ci laboratoire yu ñu xam yóbbu ko ci le centre d'anti d'antipoison de Dakar Dakar il y a un centre antipoison voilà. ñi fi nekk poison fii autour de Dakar yëpp dañ leen di contacter ne leen on a un produit tel nu ñu koy prélever est-ce que kawar yi ci la bokk est-ce que der bi la bokk est-ce que yi ci la bokk information yooyu yëpp bu ñu ko jotee c'est là que qu'on procède au prélèvement sa médecin euh, docteur Amina oh. bi dem bi ko examiner bi mu bi mu bi mu ñëwee oh. euh, ñu lancé accusation d'empoisonnement est-ce que moom est-ce que moom est-ce que sa docteur bi mm-hmm. euh, jéem na xool mm-hmm. euh, daf diagnostic mm-hmm. xool li mu bind gisuma ko li mu bind ci dossier bi gisuma ko hmm? waa CREPROS qui ont <laughs> leur service médical qui ont même leur ministère de la santé entre guillemets yëpp dañ ko taxañ flacon yooyu ñu doon wax ne sax dañ ko bàyyi fii parce que kooku dañ doon xaar seen équipe euh, seen seen équipe am na kenn kuy ñëw ramasser tous les déchets yi ko dem traité ko mais mais yow xalaatoo ne Amina bind ci ah. dossier bi man gisuma ko. mais xalaatoo ne xalaatoo ne quand nit ki boo amee sa kër quand hmm. la fay xew. no non ah, liberté tey bu la bu la mën a. indi no liberté de soin bu la no yow yaa moom sa kër. waaw ñoom loolu loolu yëpp di am. yow nga nga nga nga nga. lu ñu terewul non lu ñu terewul. yaa moom sa kër boo ne ma avortement am na sama clinique euh, je je suis pas au courant là je je te mais lu ñu terewul j'ai pas à m'informer. mais yaa moom sa kër tous les jours war naa dem ci clinique bi. ñu ndax lu ñu terewul. dañoo empoisonné dañoo dañoo empoisonné un homme politique oh. dañoo tenté d'attenter à à sa à sa vie mu am des médecins yu ñëw à son chevet euh, di di relayer wu oh. tout ça dara alerté wu la si jéemoo ñëw nga xool de très près ce qui s'est passé c'est des médecins thésés autorisés à exercer donc jàpp nga ne ils prennent leur responsabilité ah, bien sûr loolu la wax depuis le départ dans un acte médical d'un médecin thésé autorisé à exercer dans euh, au Sénégal Toi, tu n'as rien, tu n'as rien. Et quand ça, même quand ça se passe dans votre clinique, en tant ouvertes. que responsable moral. C'est des, des, cliniques ouvertes. OK. Hein? Euh, en général, ceux qui travaillent longtemps avec nous, on leur demande quand même leur diplôme. Et on essaie de savoir si c'est pas. Si pas doo hmm. <laughs> nekk médecin docteur lan amoon benn docteur dëgg naa bu doon en Europe la xaw ma bare ñaati la série la bon on essaie de s'informer médecin yi fii Sénégal on n'est pas nombreux bu ñu euh, ñëw sa clinique tout de ah, attention kii nii la mel que nii la mel là tu fais attention. donc tu parles avec lui tu l'avertis d'accord. donc c'est Sonko qui est parti chercher ses médecins. Mm-hmm. Hein, qui ont des relations avec lui j'ai même pas regardé leur dossier. parce que Sonko rek moo leen moo leen mën a accuser rey nañ ma wala def nañ ma la et à ce moment là dañuy wax Sonko ah yaa leen jëli woon c'était à toi de vérifier s'ils étaient médecins ou pas. kenn ki Sonko nee na moo ko doon faj depuis mu nekk xale mooy faj médecin de famille am ñeneen ñi la ñu bokk. keneen kii c'est un ophtalmo buy toppatoo affaire yu bët donc. donc lu ci mënta xew. lu ci mënta xew. Euh, clinique mu yóbbu ma si clinique suma yoonam nekku ci. Ah, lu ci mënta am. Euh, c'est la responsabilité des médecins. yi nga xam ne dañoo prêter serment. qui ont fait les soins. yow sa yoon nekku ci. après après l'enquête où ils ont mélangé les deux parce que bu ñu ne ma Bamba moom ma accusé de non assistance en personne ñu dem jëli ma ñu def euh, xaw ma abus de pouvoir la xaw ma lan boole ñaari dossier enquête ma parlant pendant la même garde à vue te jàppuñ ma ci dossier boobu jàppuñ ma ci. Mm-hmm. <laughs> voilà dama wax ne dossier bële lañ ma jàpp ma la jàpp boobu sax dafa peut-être man pour man ah, en tout cas on va monter le dossier dafa une autre demande que euh, ou une plainte même diffamatoire à Bamba que man docteur Niang mosuma laal malaadam mosuma ko faj donc il peut pas m'accuser de non assistance à son malade. dossier boobu ça va mais bi bi Ousmane Sonko di dugg si est-ce que waru leen woon jël yére yi mettre ko sous ah, sous scellé ah, parce que nee na dafa am liquide buñ ko jox sa bu ñu ko sotti ah, ça l'empêche de respirer euh, yow en tant que médecin euh, moom mu ne dafa am liquide bu ko sotti ça l'empêche de respirer euh, mu ngi mu ngi fatt est-ce que nekkul woon seen responsabilité balaa ngeen koy internet ngeen jël les habits mettre ko sous scellé jéem a xool. ñun respiration bi xool. Amina a regardé la respiration. Hmm? bon am na acte yu mu ko def pour que respiration bi ñëwaat. Hmm? mu pare ci loolu mu yóbbu ko ci néegam commencé joxe surveillance bi ñu ko war a surveiller quelqu'un qui a des problèmes respiratoires entre temps nag xaw ma médecin yooyu kañ lañ ñëw ci guddi gi lañ ñëw wala ci bëccëg bi lañ ñëw ñun à ce moment là n'a plus affaire à lui. xam nga euh, cette affaire là mhm. xam nga may may benn femme ci ay bopp yu metti mu moom mooy oo docteur ne ko man maa ngi maa ngi suma euh, docteur ñaa xool na sama bopp jox na ma garabu méttitu bopp mais affaire ëmb bi ma yor yow comme yaa nga cette affaire là oh. concerné wul rek la hmm. communauté internationale <laughs> nous regarde alors l'État a voulu faire la la la la la lumière les médecins euh, se sont relayés euh, nu tudd. Euh, à la demande de. non pas non les des, des médecins plusieurs médecins ont été non ont été convoqués. À sa, à sa, ouais, ont voilà, été convoqués parce qu'ils ont euh, été ils sont les enquêteurs ont voulu asseoir oui mm -hmm. ou non. Mm -hmm. euh, la thèse d'un d'un empoisonnement mm -hmm. et ils ont buté. sur le refus des médecins parce que nee nañu euh, ils ils sont tenus de protéger le le le secret médical. ils ont ils ont parfaitement raison. s'il y a pas de le cadre d'une enquête judiciaire s'il y a pas un crime s'il y a pas mort d'homme mhm. le secret médical euh, ne peut pas être levé comme ça. mais s'il y avait tentative d'assassinat ah, pour le moment ce qu'on a su avec l'ordre des médecins qui était derrière nous qui nous a dit vous tenez le secret médical jusqu'à nouvel ordre. dans le cadre d'une enquête judiciaire. non judiciaire nga wax pas criminelle. c'est des accusations de tant qu'ils sont pas conformes. Mm voilà les tentatives bon je sais pas nag tentative de meurtre on peut aller aussi loin jusqu'à présent on fait partie d'un ordre qui nous a dit que jusqu'à là vous devez rien dire l'ordre s'est mis derrière nous nous a défendus et on s'est arrêté là on s'est arrêté